li ci yéen kaay Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf garde à ñun ñëpp ñu ànd too jëli soldaar ya colonel Bara Sissoko aide de camp Abdoulaye Wade ba woon ma nga ca États-Unis observateur nañu Macky moo ko fa yóbbu ubbi leen journal bi attaché militaire te ambassade du Sénégal ba ca États-Unis moom la ko Macky Sall fal journal bi nañu la l'armée bi doon xaar Macky defu ko ndax armée bi la bëggoon moo di ñu jël kii di colonel Abdourahim Kébé ma newoon ca DIRPA def ko na mu doxaleek Mamadou armée la si ni kenn ci xëtam mu njëkk coowa ca ndax am na ñenn ñu nekk ci l'armée bi yëf ànduñu ca la leen gën a moo di waaj Mouhamadou Sow ci diirub ñeenti weer jóge na fi colonel doon chef d'état major général des armées lieutenant colonel Adama Diop mel ni ku leen di tontu ci xët mu njëkk journal bi la mu fa wax moo di Macky Sall moo njiitu réew moo am sañ-sañ ak mën-mënu jël ku ko neex fal ko fu ko neex njiitu réew mi di Macky Sall la si xew yëpp ak lu teg ci ndóor la dund populaire nañu lépp Abdoulaye Wade ko fi def ndax bu ñu sukkandikoo ci rapport bi tukkee ci unité de coordination suivi politique économie la xamle moo di sénégalais yu ndóol nañu ndóol goo xamante ne ji jéggi na dayoo ca ndóol googe ci jamonoy Abdoulaye Wade la leen dale ndax ci atum jàpp 2012 Abdoulaye ñu ndóol ñi mu fi fekkoon téeméer bu ca nekk yokku na ca fukk ak benn ca Kolda ca Kédougou ca Sédhiou yéenekaay di fa la ndóol ga wullee ñaay woon directeur des aéroports su nañu ko ay mbóot ka ko wuutu ca toogu ga di Mayel Diop moo fa feeñal ay njuñ njaaj yu ne Mbaye Ndiaye moo ko fa def bokk ci téeméer ak ñeen fukk ak ñeenti millions yu ñu yëkkati woon jënd ci juróom-benni watay pick-up ak ñaari téeméeri millions ak ñeen fukk yoo xam ne ñañu ko doon fay amuñoon contrat ca foofee njuñ njaaja yamu ca ndax leneen lool njóobeen bi feeñalal na ko njaayeen bi ca aéroportum Dakar moo mandat d'arrêt international ami xabaar yu jug weddi ko observateur xëy na dellu si waat ci mbir ma la xam ne moo di xabaar ba ñu waxoon lu am la lu dëggu la Karim Wade ñoo koy wër ci lu amul benn sikki sàkk te xibaar bi dara du ko dindi kañ lay jóge fa mu nekk moom promoteur bi di Luc Nicolaï ma nekk ca kaso ba yéenekaay yu bari ñu xëy ndool xëy dellu si waat ak ñun ca janom ba journal bii di Le Quotidien moom xëy ñu lalal procès weerbal ba Luc ak Bernard ko ba altine bii di ñëw observateur ne ko juróomi fan ci weeru novembre lay doon ca la Luc bëre waaye bërki démb ca tribunalub Thiès ku mu fa fekkul woon fekkee woon dara ndax ca ñu ñëwoon di jàppale Luc Nicolaï bari ca ñu doon xëm ak ñu doon jooye ko yuuxoo ki nga xam ne moo di ñaareelub Luc Nicolaï bi moom journal bi ñu ba mu taxawee ca kanamu tribunal ba daf doon lox ak patpati ndax tiitange ñenn ci ñu nekk ci làmb ji teewoon foofee ca tribunal ba ngir di jàppale Luc Nicolaï ñoo ngi ci sunu làmb seeni kàddut mi ngi ci journal bi bokk na ci Luc Nicolaï maître Babacar Cissé mi avocat Luc Nicolaï nañu ci yéenekaay bi ab coup monté la waayam ji dañu koo teg dil zos borom dóor dóoraat gorob Luc Nicolaï nañu Luc Nicolaï fi mu nekk ni du palaasam moo du xarañ loo ay kàddoom moom it mi ngi ci xët mu njëkk sunu làmb la mu gis moo di ci lu yàggatul dara Luc Nicolaï danañu ko bàyyi mu dellu këram journal bi dañu waaye moom moo du xarañ loo ca mbër ya demoon ca tribunalu Thiès ngir jàppale Luc ko moom rekk nga gis ne nekk ci làmb ji tudde seen bopp ay VIP ñoom ñëpp kenn ci ba li doy waar ca nar a teere ji tribunal mi ngi ci xët mu njëkku libération benn espagnol ànd ak benn doomu Sénégal nekk ci réew mi defi njombe journal bi nañu meew mu bon la ñu indi ci Sénégal ñaar fukki ton jot nañu ko cee jaay jamono ji ñoom ñaar ñëpp ña nga ca section recherche bu brigade Colobane gendarmerie leen teg loxo ba ñu leen di jàpp fekk nañu denc ca poorub Ndakaaru ñeen fukki ton yi meew moo xam ne dara ci baaxul yéenekaay bi nañu yéen ñu yor ay parental maanaam ay bébé def leen ndànk ci meew mi ñuy jaay ndax meew mi nga xam ne doomu Espagne boobeeg doomu Sénégal bi ànd nañu ko indi ko ci réew bi te dara baaxu ci meew moomee xale yee ko tax a jog